jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal gannaaw bañ leen nuyu rafetlu ni ngeen di toppee suñu chaîne bi ngeen informé wu lépp lu xew ci réew mi ak seen acte du jour dañ koy doore ak son excellence Bassirou Diomaye Diakhar fay mu mel ni nit ki 4 out bi nag ñu nga koy xaar foofa ca diwaanu Touba loolu nag mu daal di yem ak sax journée nationale de l'arbre mu mel ni foofu lañ koy daal di amale rek ca diwaanu ak kii di xalif général des Mourides Serigne Mountakha daal di rek jël ab décision bu am importance lool ci la nga xamante ne rek moom moo di teewaayub njiitu réew ca diwaanu Touba ngir rek présider li ni mel mu daal di rek joxe ndigal ngir rek. rek ñu daal di ah, dalal bu baax a baax rek ka nga xamante ne ah, moom moo di njiitu réew mi ci rek la nga xamante ne ah, daanaka tànn nañu Touba ngir rek amal ko fa muy journée nationale de l'arbre loolu nag daal di yem ak sax ndigal loo xamante ne rek ñoom taxaw nañ temm taalibe ngir daal di koy jëfee rek taaralaat dëkk ba ba noppi rek daal di rek réservé accueil chaleureux ci rek ka nga xamante ne moom moo di njiitu réew son excellence Bassirou Diomaye Faye ngir rek bu ñëwee ak journée ba nga xamante ne mu nga daal di tabb rek. rek diwaanu Touba ngir amal ko fa rek mu amal ko fa ca jàmm ak salaam mu dal di yemoo rek loo xamante ni sax daanaka dafay bokk rek ci luy gën a taaral alam gi ci rek la nga xamante ne moom moo di journée nationale de l'arbre bi yoon nag ñu dal di koy fas yéene amee rek foofa ca diwaanu Touba. Ah, bu ñu jógee ca loolu ñu wax ca leneen kii di ministre Serigne Gueye Diop ah, mu mel ni nag wàllub népotisme gannaaw nag ah, ministre Yacine Fall ma nga xamante ne rek daanaka ton na ñi nga xamante ni sax daanaka ñu ngay wax doomam dañu daal di tab rek dénk ko ca wàllub artisanat mu mel ni nag moom Yacine Fall ca rek ka nga xamante ne moom moo di entretien spécial bu mu amaloon ak Pape Alé Niang leeraloon na rek li ni mel wax sax ne la nga xamante ne rek moom moo di les nominations moom fekkewul tinul jamono jot nag fekk. fekk na ah, mu nga woon ca diwaanu Accra eh, mu mel ni nag moom ma ba mu ca jógee nag ah, beneen ministre tamit ñu ngay wax naan dafa daal rek ah, jël yenn ci ay membre famille am daal leen rek dugal ca fa nga xamante ne moom moo di ministère am mooy Serigne Gueye ba mu déggee yi les kaddu mu daal di koy naqari loolu waral nag ba mu daal di génn sax di leeral rek ñi nga xamante ne ñu ngay wax naan dafa daal di rek tànn ca membre famille am daal leen rek dugal leen ci ministère am muy wax rek naan ñu nga koy wax rek ministre yu bëri waaye waaye nag dara amul ca la nga xamante ne daanaka ñu nga koy wax def nañ ko ca El Malick Ndiaye def ko ca ministre Yacine Fall bi yoon nag ca moom Serigne Gueye Diop la ñu daal di dal rek waral ba moom mu daal di def sorti rek démentir li ni mel rek jëm di tànn ay membre famille dugal leen ci ministère am di wax ci leneen alxeyri daal dinay jip rak ci Aziz di Baye Ndiaye daal dinay rek jël beneen soxna muy rek bét yi bu Pod et échou loolu nag ah, mu daal di doon sax mariage boo xamante ne daal nañ koy amal ni ki tey ah, daal di koy rek célébrer moom Baye Ndiaye ah, daal di am mbégte mu baax a baax rek ak teewaay ñenn ca ñi nga xamante ne daanaka xarit ak am di jàmm lañ bokk na ci frère am di rek waaye tamit ñu nga cey gis Oustaz Modou Fall ak ñeneen ñoo xamante ne daanaka ay xarit ak am di jàmm lañ teewoon rek ci bisam bi nga xamante ni sax daanaka mu nga ko muy mariage Baye Ndiaye ak ka nga xamante ne ah, moom moo di Betty bu Pod et Marichou ah, belle image moom la ñu gis noonu rek ah, ñu daal di partager rek ci bile mariage nga xamante ne daal dinañ koy célébrer en toute discrétion waaye nag moom Baye Ndiaye sax yenn ci ay vidéo yoo xamante ne rek ñu nga koy partager moom ak ka nga xamante ne moom moo di première femme am mu doon wax sax naan du takkub ñaareel mu mel ni nag internet yi ku ca nekk rek mu ngay dugal bile vidéo ñu mel ni sax ku koy vaar rek ci bile vidéo ndax moom daal dinay rek ah, jël benn nupp soxna ni ki tey mu doon loo xamante ni rek daanaka doy na waar lool waaye a ah, ñu la leen bu baax a baax rek ah, digganteem ak kii di Betty mu daal di doon mariage bu daal di bëri jàmm lool ci rek la nga xamante ne daal nañ koy célébrer rek mu doon mbégte ci Baye Ndiaye ak kii di Betty bu ñu génnee ca loolu ñu daal di wax ci faramaren bi mu mel ni nag ni ki démb daal nay rek enflammé diwaanu Paris loolu nag yenn ci ay prestation a xamante ne ah, ñu ngay nemmeeku rek artistes yi di koy def mu mel ni ah, moom Wally Ballago Seck kenn demul mu des ci bis ba niki démb nag spectacle inédit la daal rek offrir ñi nga xamante ne ah, ñoom ñoo teewoon ci rek bile concert mu béggalaat bu baax a baax ay fansam waaye tamit ñi nga xamante rek daanaka ñoo safoo bile compétition des Jeux olympiques a baax ay soppeem rek à travers concert bu am am solo ba nga xamante ne rek def waa Paris ñu wax ci Faynara la tiktokeuse mu daal di rek partager de très belles photos daal di rek adopté cosaanu séeréer mu ngay rek partager de très belles photos moom fay Faynara ñu ngay gis rek image nga xamante ne moom daal dina koy rek dévoiler séduire bu baax a baax rek ñi di ay flowsam à travers ces belles photos moom Faynara daal di doon ku ñu ràññee bu baax a baax ci réseaux sociaux yi gis nañu récemment belle image nga xamante ne daal dina koy partager reportage en couple avec Didier Recha mu mel ni moom bébé Binta dal na rek génn démentir li ni mel mu daal di ñeel sax ay rumeur yoo xamante ne rek daanaka ñu nga ko doon wax jëm ci digganteem ak kii di Didier Recha waral nag ba moom bébé Binta daal di rek weddi li ni mel ca plateau Sen TV di wax rek ne kii di Didier Recha frère am la kon nag yenn ci ay rumeur yoo xamante ne mu nga koy dégg na ko ñëpp déggee rek moom noonu la ko daal di déggee mu doon loo xamante ne daanaka interne. internet yi ñu nga ci doon rek yéey ah, yàb bi di wax naan moom ah, di nekk en couple ak DJ Kheucha am déet waaye moom nday mbili ji nag mu mel ni ah, daal nay génn rek démentir li ñu daal di wax ci wàllub wér-gu-yaram mu mel ni réewub Sénégal daal nay rek réussir quatrième transplantation rénale foofu rek ca l'hôpital militaire bu Ouakam loolu nag mu daal di doon ay jéego yoo xamante ne rek daanaka def nañ ko ci wàllub médecine ni kii nag samedi bi daanaka daanaka sax ca lañ daal di rek amal li ni mel waral nag ba ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo daal di rek réussir li ni mel ñu doon rek ay doomu Sénégal daal di rek wanewaat médecine fii ci Sénégal na mu daal di développé rek mu doon ñeenteelu transplantation rénale boo xamante daal nañ koy réussir ña nga sax daanaka ñoom ñoo daal di wu rek ci mbir mi ñoom ñaar ñëpp seen wérgu yaram daanaka intact dara dalu leen mu daal di doon rek prouesse yoo xamante ne ñu koy gis médecin daal di ko rek réussir bokk na ci la nga xamante ni rek moom moo di transplantation rénale ñu daal di koy rek réussir fii ci Sénégal ñu daal di jeexale ak wàllub immigration clandestine mu mel ni nag lu toll ci deux cent trente migrants daal nañ leen rek secourir foofa ca diwaanu île Canaries ca Espagne mu mel ni nag ñoom ñëpp ñu nga nekkoon rek ci ñetti gaal mu daal di doon loo xamante ni rek daanaka ñoom ñi nga xamante ne ay migrants lañ rek lim bañ ko daal di wàññee rek toll na ci deux cent trente migrants ñu départoon rek utali fa nga xamante ne moom moo di Espagne daal di rek jaar ca ndox ma waaye nag ñoom daal nañ leen rek dimbali gannaaw ba nga xamante ne seenu gaal daal di nay rek aksi foofa ca île Canaries ca diwaanu Espagne gaal ya nag daanaka deux cent ñu nga rek nekkoon na ci ñetti gaal mu daal di doon. ab phénomène boo xamante ni rek mu ngay gën di wëy ndaw ya ñu ngay rek wutali gaal ya ngir rek teeri ji foofa ca diwaanu Espagne ñu ca bëri nag daanaka dañuy des ca ndox ma waaye nag am na ca ñoo xamante ne rek daanaka rëcc nañu bokk na rek ca ñetti gaal ya nga xamante ne dal nañ leen rek secourir foofa ca île Canaries ca diwaanu Espagne ñu daal di toll rek ci deux cent trente migrants mbokk yi safoon doon ñu teewlu lii lañ leen andiloon seen acte du jour di leen ñaan a jàmm di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi notification ba nga raté dara suñu information jërë ngeen jëf.